a ke o tloga malaysia e ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. dañ ca ndagal Hadj Assane yéenekaay bi di Les Échos xëy na tey la bisab dëgg gi ngir Déthié Fall soxna Mame Diarra Fam Ahmed Aïdara gi Mari Sagna di ñu nu jàppoon ci kaw manifester yu nu fi namoon 17 juin 2022 ca mu doon manifester gu préfecture Ndakaaru yéenekaay bi ne maître Abdoulaye Wade nag ngir ak njàppale yebal nab délégation ca kër Déthié Fall moom Déthié Fall mi yéenekaay bi di Les Échos jàppee jàmbaar ak dëgërug soldaar gu mu wane dëgg ci nattu bi xeful raful ñu ne ngir wéyal bi ne tey opposition bi ci audience spéciale la ñu ne te seen ñoom ñu ci jàpp daañu xam ne seen ëllëg di tëddee ña ñu duppee nag brigade spéciale ci ñu toppee woon leen pexe yi bëggoon dem ci jumtukaayu Sénégal gi ca Cap des Biches source aané buñ fa songi woon deret yu bari dina fa tuuru ndax takk der yi jumtukaayu Sénégal yu mag yi ñoo koy faral di garder yu yemamaay yi ñu koy dénk sécurité privée yéeni kaay bi ñëwaat ci avo mu ne di xibaar yu kuñ naan morgey wax takk der yi a songe ji Abdoulaye Sawel ak mu tarkaate gi gën a tar observateur moom ñëwaat ci jaar-jaari Pape Ousmane Seck mi ñu teg loxo ngir terrorisme ci waxin ay njàngam jaar-jaaram digganteem ak Ousmane Sonko duggam ci Pastef waa Pastef géewul ñoom ñaawlu dafa ñaawlu yam sax jàpp gi ko jàpp moom Pape Ousmane Seck ndax dañoo gis ne lanu ko toppee dara wéru ci manifesté ci réew mi nag ak fitna gi muy àndal moo waral maître Abdoulaye Tine ci yéene kaay bi di réew mi jàpp ne loolu dafay teree am élection a Dakar di ca sàkku ci état bi mu respecté ab bënu jàpp ngir wotey député yi Tiwaawoon moom les ko ne jaajëfal nañu président Macky Sall kañ ko ci jikko ci yéenekaay bi kilifa gu tedd gi Serigne Babacar Sy Mansour naan ko naw nañ sab yar sab dal ak sa tey Serigne Maodo Sy Dabakh teg ca di ko ñaax moom président Macky Sall mu wéy ci dal gi waaye su gisee mu ne lu jara faj na ko faj ci saa si mu mel ni moom président ma ci ma ngay xamal opposition bi na nag ay rëdd yu kenn dul jéggi moom président Macky Sall ak lu mën a xew bul mës a ubbi sa gémmiñ di tontu ndax nag li wolof naan su ñëpp yemee am ñu gedd seen cër ca nag kilifa soo melee ni matatu ci sëñ Maodo Sy Dabakh ci Vox Populi teg ca ni daa am ñu bëgg a yàq réew mi ca amul ragal ak wax ka las ni ci waawoon daal lalal nanu ñaare tapis rouge président Macky Sall la moom li ko yéem ci beneen wàll mooy ñaar fukk benn milliard yu ñu def ngir taaral corniche ouest bi ci yëf yi daal ak yàq ngi ci xibaar buy neex sekkee nag njaween yeeg tabaski gi nu dëgmal di xar du manqué ndax su weesoo li fi ne lool doy lool machallah ak daa jóge fu mel ni gànnaar dina amit xar yu jóge Mali nañ ko daa defee ndax kilifa yi Mali jàng nañ ci le quotidien jox nañ ndigal ubbiku frontière bi ngir xar yi jàll Sira Dramé tur wi miinu leen ko waaye suñ ne soxna si sàccoon bébé ay da xel yëpp dellu si waat Sira Dramé ñaar fukki ak juróom-ñett la am fekk baax ca Gambie ni ci buum amul takkaleer ci ma nga naan xale bi defu ko lu mitti da ko doon sax toppatoo doom ju mu boppam doom mu bëgg lool ca borom bi ko cib sëy ëmb na ñaari yoon mu ne mu tuuru bëggatul woon sax mu ne Bébé Aïda taxali ko ak moom coupe du Sénégal Casa Sport mel ni moo ko gënoon bëgg ren gàcce ngalaama ñoom club Casamance bi stade yéene jàppe ndam li doublé historique bu dugg ci taarix lamb ji moom Abdou Bakhoum amul njott gu rafet yi Modou Lo Ama nee na sax ko tëgg bu may wul kaso ngay mujj di lum jàng ci sunu lamb yéene bi xamal ñu ne jamono yi Ama Bombardier la ñuy démarché gëj moom noppi na ngir daje ak Franc ni ko amateur yu bari bëggee ay soppeem naka noonu di lu jàng ci sunu lam